waaw dañuy xaarandi cortège bi rek la ñuy xaarandi mu génn voilà mu ngoog ñu dalal honorable député euh, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké honorable député ñu am mbégte lool dalal la ci suñu plateau tey bi wax dëgg yàlla tey nan nga dundee visite bi honorable waaw euh, maa ngi lay sant bu baax xanaa dund gu mbégte parce que jàpp naa ne président la bi mooy ñetteel bi yoon mu ñëw fii li mu wax sëriñ bi dégg nañu ko wax nañu ko dama ñëw pour gën la fetli si li nga xam mooy sama kóllëre ak sama taalibe jëme ko si yow wax na aussi tamit xamal ko ni ko am naa yéene bu baree baree bari si taxawal li nga xam mooy soxlaay askan wi rawatan li nga xamante ni moo jëm ci mbirum ndox mi ñuy naan ak assainissement bi ndax ku ne xam na ni Touba ñaari problème yoon am moom nee na li ko yàlla nattoo muy pouvoir bi mu ko jox nguur gi mu ko jox muy président de la république ci diiru juróomi at am na yéene pour régler ñaari jafe yooyu noonu bi ñu ko waxee nag ñun en tant que député Touba en tant que talibé suñu xel dafa sedd parce que jàpp naa ni ñun lu mel ni rek moo taxoon ñu bëgg ko lu mel ni rek la doon xeex ndax nay Touba jaral nañu suñu lépp tey bu ñu gisee koo xamante ne muy président de la taxaw na ni dana ko faj ci kanamu sëñ Muntaxa askan yépp di ko dégg mu wax ko si safar bi ñun ñëpp ñu ay taalibe la ndey suñu xel dal na suñu xol sedd na ndax bii moo ñetteel bi yoonam mu ñëw ki kon jox na yitte dëkk bi sëriñ bi tamit tontu na ko ñaanal na ko wax na ko li nga xamante ni moom mooy li nekk mooy moom mi jiite na gën a fexe ba ñëpp booloo nekk benn ndax tey lu ñu fi indi état la état président de la République moo déplacé wu ñëw en tant que doomu dëkk bi nekk député bi dëkk bi ñu ñëw teeru ko teral ko pour wan Sénégal yëpp ni ñun république bi nga xamante ni maanaam moom la ñu jiite te moom mu nekk si kanam république boobu dañ ko war doxal ndax ñun ñëpp jàpp ni tey gan gii nga xam moo fi ñëw ganu Serigne Touba la suñu gan la moo tax ñu déplacé wu si taw bi ñëw teeru ko tatagal ko di ko ñaanal yàlla mu àggale mission am si jàmm parce que mission bi mu yoree mission bu noble la parce que nee na moom serviteur la boo xamante ni dafay liggéeyal pour askan wi te ni mu ko tàmbalee wax na ko wane na ko ba fu mu wax ne fi la war a jaar di ko si jokkale rek mooy ñun projet boobu noonu yàkkamti nañ ko te ñu ngi koy xaar ñu ngi ñaan yàlla mu àggale ko parce que yaakaar naa ne bu ko àggalee soxlaay Touba yëpp dana nekk loo xamante ne lu féete beneen yoon lay doon ñu jublu si leneen en tout cas ñëw bi moom ñëw bu bu am solo la ñi ngi lay sant Cheikh Bamba di sant waa RTS ndax ku xam ne tey ku nekk bitim réew sax yaa ngi seetaan am sa kontaan te yéen yéen a ko waral waa Amérique ni ñu def ci Bamba Day bi loolu na solo di wane moom mooy li nga moo fi nekk parce que Serigne Touba ñun mun ñu ko fay ndax li sëriñ bi wax nee sëriñ Tuubaa bis bi nga xam mooy 18 safar bi mooy bis bi mu demee di liggéeyal sama borom nit ku dem di liggéeyal sama borom mooy ndam li nga xamante moom nga si jële tey ndam loolu moo waral sax sëriñ bi ñëw na ndax comme contribution ci liggéey bi ndaxte xam nga état day def lu bari waaye tamit ñu ci mel ni yéen dëkk ci dëkk ba pare tamit tekk fi nekk ay député gis nañ moto pompe yi nga doon joxe. mu di loo xam ne lu am solo la yow daal daanaka jiitu nga euh, wala bokk nga ci jiitu ci liggéey bi fii ci Touba. xam nga damay jàppale état ci lépp lu jëm ci mbirum askan wi man moomeelu Serigne Touba la moo tax lii wur mu war ma ndax boo xoolee ñeent fukki moto pompe ak ñaari junni litre essence jox ko fi ngir dimbale askan wi tey ñu xëy seet yoo xamante ne bool nañ si ay diw wane ni maanaam ñoom fa ñu nekk bu bis bi war ko màggal man jàpp na lépp lu ma def si dëkk bi mooy lu ma war a def ndax man jàpp ma awma lu dul dëkk bi kon ñi nga xamante ne tey dañ fee nekk ñu mel ni ñun ak état ñoom ñëpp war nañu gën a yée wanewaat seen taxawaay ci askan parce que askan wi nag soxla nañ ko leen taxaw loolu moo waral suñu teewaay sëñ bi xanaa kay euh, ñu bàyyi la appel bu mujj rek xam nga ak tamit ñi ñëw Touba ñu ñëw si jàmm rawatina nag ak euh, yoon wi wàllu yoon wi ak sécurité beeg yooyu si loolu laa doon mujjee ndax sëriñ bi ñaan na ñi nga xamante ñoo war a ñëw nañu daw ndànk ndax ku ne xam na ne fan yi accident yi bari na lu ko waral nag mooy tëli yi am na si yu baax wax na ne autoroute bi baax na mais teewul accident yi fi la ëppee mooy nit ñi nañu ànd ak dal daw ndànk ñëw ak si ndànk delluwaat si ndànk parce que nit ki nag bu fekkente ne da nga dem di da ngay wuti lu baax ka ngay sëf ak ak sëf yëpp war nañu def loo xamante ne yow da nga dem ak wuti lu baax wañu ko waat boo demee lu baax loolu nga mën ko jëriñ njaboot moo tax may laa si appel képp koo xamante transporteur route ngay nekk di yëngatu na ñëw si jàmm delluwaat si jàmm te nga dal te daw ndànk te defar say oto ba mu baax te respect li nga xam mooy code de la route loolu laay woo ñëpp di ñaanal ñëpp waaye nag yàlla moom moo yore bakkan waaye ñi nga xam ñoo jot a faanu ñu ngi ñaan yàlla xar leen àjjana fii nga xamante ne dëkkub yërmaan la muy Touba bu ñu fi ñëwee ba dellu lépp luñ fi ñaan yàlla na ko am am jàmm nawet boo xamante bu barkee lay doon ñu génn seeg jàmm pour que Sénégal mën a fàtt jafe-jafe yi tamit incha allah ñu jóg di ñaanal nag sëñ Muntaxa di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi tamit ndax sëñ Muntaxa ñun kat amuñu fayam parce que ku ko gis xam ni képp koo xamante ni jullit nga rek sëñ Muntaxa am nga si moom fierté bu baax a ndax ni muy eh, yoon bi di ko taxawoo diine ji tey waxam ji rek firnee ndax nee na ay taalibeem lan ñëpp ay mbokkam la jiite li nga xam moom lay attaqué mu ci mbirum ndox mi tey président de ñëw na pour aw loolu kon jàpp naa ni sëriñ Muntaxa xam-xam la jiite parce que jàpp na réew mënoo koy tax amul xam-xam mm-hmm. loolu moo waral tey ji mu bëgg tàggat ndaw ñi ay formation ak xam ba nga xamante ni ñoom ëllëg si biir bu ñu génnee daal mën a jariñ seen réew jariñ seen bopp dimbali seen njaboot ndax réew mënuloo koo yor ndaw ñi amuñu formation amuñu xam-xam jànguñu mm. loolu la sëriñ bi teel a xam na ku xam ne sëriñ Touba képp koo xam ne da ngay woote jàng ak xam-xam ci moom ngay dëppee parce que lim bind ak lim jàngale kenn def ko rawat nag ne moo ko fi toogal tey bu indee université boo ko ubbi ko war koo liggéey continuer boobu noonu ñun ñi nga xamante ne ak njabootam lan duñ mën lu du am si kontaan am mbégte xam ni xam-xam mooy taxal am réew mm-hmm. xam-xam mooy tax réew nit ñi jub xam-xam mooy tax nga mën a liggéey pour mën a jariñ sa réew kon jàpp naa ne xam-xam boobu noonu moom la sëriñ bi wax moom la sëriñ bi def jàngal nit ñi nga xam mhm. ay formation ndax nit ku jàngul amuloo formation pour nga jariñ sa réew day jafe wax dëgg yàlla amoon nañ mbégte lool en tout si Ahmad Bamba maa ngi lay sant baax gërëm di jox ñëpp rendez rek ñu ñu ngi si safar gi di woo ñëpp rek si màggal gi jàmm képp koo xam ne daal yaa ngi Sénégal boo xamee Cheikh Abdou Badoli boo duggee Touba sa soxla faju na sa aajo ji eh, eh, kon eh, boog <laughs> kon boog mu ñu am mbégte lool mu ngoog jërëjëf sëriñ bi ñu amoon mbégte lool ànd ak moom sëñ Abdou Bara Dolly Mbacké honorable député fële ci assemblée nationale wax dëgg yàlla moom it taxaw waa ci fànn bu ne ànd ak ki nga xam ne moom moo di rakkam sëriñ Cheikh Thioro Mbacké Euh, nga xam ne tamit euh, ñu ngi def liggéey bu am solo fii ci Touba euh, dégg ngeen ko joxe na lu kon ci ñeent fukki moto pompe nga xam ne pour rek féexal askan wi bu fekkee nag am na foo xam ne dafa taa mën ma xaw na leen sonal moto pompe yooyu la daf leen di dimbale bu baax a baax ngir nag ndox mi mën na dem bu baax a bax ñu yóbbu ko ca bassin yi xëcc ko donc moto pompe yooyu la lu am solo la fii ci Touba. Euh, donc xam ngeen ne ñu ngi fii nag ba léegi di xaar euh, njiit mi président de la république bu génnee nag euh, dafay dem fële nga xam ne moom moo di rek jumaa ja daal di fay ñaan moom tamit wax dëgg yàlla ñaan fa lépp loo xam ne bëgg na ko ci Sénégal rek yàlla defal ko ko ci barke sëriñ bi waaw maam Moussa Niang bu fekkee yaa ngi ñuy seetaan xanaa da ngeen ñuy en repérage rek le temps président de la république génn pour dem ci jumaa ja Euh, loolu tamit di ngeen ko am bu tombeek tamit xibaar yi euh, marax yi dañ koy xam naa dañ koy dugalaale ci biir rek ak équipe bu euh, présidence bi ak suñu équipe yi nga xam ne tamit ñu ngi fii di topp président de la république avant muy ñëw ak bu ñëwee